dafa am ay sénégalais yoo xam ni jotuñu woon exercer li nga xam te moom mooy seen droit de vote te droit de vote boobu mu nekk un droit constitutionnel suñu constitution moo ko prévoir moom ni képp koo xam ne am nga fukki at ak juróom-ñett nga jouir de tous tes droits civiques et politiques yoon daf la war a aar sàmm la pour nga mën a exercer li nga xam te moom mooy seen droit de vote boobu mais dañu gis que ni ñooñu mu wuñu exercer seen droit de vote. mais également nous disons que nous avons une rupture d'égalité rupture d'égalité parce que nous avons une partie des sénégalais qui jot carte d'identité Et comme nous assurer la légalité euh, de tous les citoyens devant la loi donc kon rupture d'égalité donc nous avons beaucoup de préjudice donc préjudice pour vous, c'est organisation Amnesty Rado, ak du initié une plainte pour plainte citoyenne lañ ko plainte citoyenne parce que que cette fois-ci c'est l'affaire des citoyens donc ça n'a rien à voir avec contentieux euh, devant le conseil constitutionnel mais cette fois-ci c'est les citoyens Nous ci seen Nous nga nous cas

donc je pense que ni lolu mo waral tay euh bolo bi ba paré nak mu nek lo xamne dafa am solo dafa am solo ci suñu taax bi kuréel parce que pour la première fois ñu gis ay organisation yo xamne dañu nek ci société civile bi yamatuñu rek ci dénoncer taxaw ci mbedd yi def marche mais cette fois-ci dañu entamer benn plainte bo xamni japp nañ ko ni buñ ko yobé ci kanam yoon dinañ ci am ndam parce que li dafa nek lo xam c'est vraiment flagrant ñun nak liñu waron def def nañ ko muy le citoyen lambda

doon lancé li nga xam tey mooy plainte bi plainte citoyenne plainte bi nag disponible na fi wax naa ko léegi ñi nga xam ne ñoom ci salle bi te également ñu nekk situation boobu mun nañ ñëw jege si ñu mun a signer plainte bi sinon également am na site boo xam ne en ligne te organisation yi fi nekk kenn ku nekk si ñun également dina ko yóbbu sa siège pour que en tout cas ñu def un travail de terrain pour que ñu mën toucher en tout cas beaucoup plus de Sénégalais yoo xam ñoom ci kaar